dal leen ak jàmm mbokku internet yu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax ziar leen di wax ñi nga xamante ne dañoo bees seen maa leen wax ngeen dal jàmm di leen wax welcome bienvenue ngeen abonné pour bañ a raté nag suñu benn vidéo da ngeen ni cliquer ci boobu aimé vidéo bi franchement vidéo Senfootball TV bu duggee li ngeen ko am mbokk yi tey damay wax si benn euh, journaliste ngeen xam ko bu baax baax tout le temps ma Sénégal bi jeexee dina wax. muy Cheikh Tidiane Gomis bi nekk wal fajiri xam nga xam nañ ko si critique bu baax xam nañ que si benn journal bu xamante du may dara Aliou Cissé moom nag waxaati na mu ne waxaati na mooy que moom après mu gis barrage bi clip équipe yi fa nekk ñu posé ko question ñu ne ndax ragaloo benn équipe mu ne man ragaluma Cameroun ragaluma Égypte équipe yi fa nekk moom ragalu si kan muy Mali muy RD Congo ragalul équipe yooyu yëpp moom nee na Aliou Cissé la ragal maanaam choix yu Aliou Cissé moo koy tiital dem na sax ba wax ne bu gisee sax joueurs yi échauffé yu nii match Sénégal lay commencé tiit fii tam day dem moom daal nee na Aliou Cissé bu commencé changement rek voilà day tiit quoi ba pare nee pour ñu gagné Coupe d'Afrique il faut que xool yi doon benn am ñu xamante ne saa yi dañoo mer kontaan nañu fédération xam na lu ñuy wax ñooñu ñoo leen fexe ba ñu kontaan bu fekkee loolu def nañ ko nee na defaat émission wax leen ne coupe bi mu ngi nii ñëw na Sénégal en tout cas daal si tënk bu ko doon wax si Cheikh Tidiane Gomis li mu wax moom Euh, gëm na Sénégal gëm na effectif bi gëm na joueurs yi mais entraîneur bi la wax la gëmul yéen nag xamoon nañu que mais football nag moo demee nii ah. wax xalaatam am na ñu ànd ak Aliou Cissé am na ñu àndul ak moom am na ñu ànd ak géré nañ am ñu àndul ak géré nañ football moo mas a noonu tout le temps ñii dañuy wax lii ñii wax leneen euh, li ci baax mooy tout le temps ñu argumenté rek loolu moo si a am njëriñ man bu may def vidéo damay joxe sama xalaat ma jàpp ne am na ko xam ne damay jox beneen beneen xalaat boo xamante ne donc euh, football moo essence et tout donc mbok yi nek ci commentaire xamou no leen que yooyu lay ni Cheikh Gomis xamna mom euh wax ji leen xamou parce que ngeen ko gis wax nangam nangam nangam donc euh, bon en tout cas man aussi un peu partager. Je xamna vous lu bari ci côté tactique mais pour man avancer na lu bari ci côté bobu euh jeu jusque Coupe d'Afrique bi moom conf am naa confiance quoi am naa confiance pour que Coupe d'Afrique bi mën a Sénégal bu ñu defee li ñu war nag ci kaw ñu def li ñu war ci kaw ñu def li ñu war li ñu war bu ñu ko defee Coupe d'Afrique mën na ñëw fii Sénégal joueurs yi ñu ngi fi mentalité bi moo ngi fi bëgg-bëgg bi moo ngi fi ndax instant yi ku bëgg Coupe d'Afrique ñun ñoo la ko war gën a bëgg mos ñu ko gagné ak joueurs yi ñu yor donc euh, voilà mbokk yi ci commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur football TV bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen